kaw ah, lii di xobi banaana bi ah, mu lumas ko fekk ndox bi su suyeer bi teg na ko si ah, si furno bi ndox bi baax na ba pare mu jël indeem tay so su tayee inde bi su pare dafa jël lii nga xam ne moom la lumas ni muy ñebe bi nga xam ne dañ ko wol pour abala bi nga gis ne daf ko cee teg si kawam waaye nag teg si kawam bi tamit gis ngeen nu ko tege daf ko teg ba pare ñeneen dañ day jël naka foil def ko ci waaye moom dafa dellu cosaan jël rek lii di xobi Uh, uh, banana bi rek dellu cosaan rek def ñun mami yi daan def bi nga xam time boobu foyal so mami ni lañ ko daan defé so mom non la ko defé rek tek ba so si inde bi da nga gis fi di sous ndanka ndanka bu len def safara bo xam ne ndox bi dafa teel bax da nga na bay ndox bi di bax ndanka ndanka da nga ni ñebbe bi tamé mun na ñor nga xane ne ko léké ah, di nga feel né ñebbe bi ñor na ba paré mu ngi soft Ah, ba pare ah, di nga ko mun a enjoy waaye xam nga su ndox bi ndox bi bariwul ba pare nga bàyyi ko mu bax bu baax nga gis ni ñebe bi du ñor xafanaaf fu mu nekk ne gis ngeen mu ngee defar lii di abala bi ah, moom laa defar no bi la moo defar ni mu nekk ni jël na bi grain kaani lii dog fu mu nekk ni lii ñuy ooye bita tomato mm, ba pare dafa dog garden eggs mooy ne batanse bi boobu tamit daf ko slice daf ko si biiram su paree dafa fekk laka bi mu safetoon ba pare boobu la moo jël rek def si su ko defee mu def si diwtiir tuuti ak kaani gis ngeen mu ngi slice fu mu neke ni loolu yëpp laa jaxase ak ñebe bi su paree rek mu delluwaat si xob yi ah, banaana bi nga xam ne moom la defoon si ah, si abala bi moom laa defaat tamit si olele bi moom jël. defaat rek waaye this time dafa am tuuti différence tuuti différence bi mooy ne su tegee ah, pour suusal li daf day jël ah, saaku comme saaku pompiteer nii rek mu nga koo jël rek nga xaw koo tooyal soo ko tooyalee ba pare danga koo mas ak lii di olele bi nga gis ne saaku bi tamit xam nga dafa absorb ndox dafa am hit nga gis ne ñebe bi dina ñor si biir ñaari boor yëpp tamit dina ñor su ko defee rek ah, soo ko mu munee soo ko génnee su ñoree rek nga xam soo ko lekkee dina neex a lekka li ma leen de wax dafa nooy ba pare xam ngeen ne ñebe moom ah, lu am solo la si ah, wérgu yaram doomu aadama foog naa ne am naa kenn si line bi hello asalaamaaleykum. hello hello na nga def. jaama rek. tur bi ak foo ñoo koole. mala aji Ndiaye. aji na def. jaama rek. ok foo ñoo koole noonu. maa ngi jógee Gouta. ok ah, naka nga gisee abala bi ak olele bi tey. ah kii liggéeyam rafet na. waaw kooku mooy sista Sabtu. neex na trop. ko ko ko ñu ko defee mbaa jàng nga si lu bari. ah waaw jàng si lu bari. waaw xam nga ñebe moom seerut soo demee marché rek mun ngaa jënd rek wol gis ngeen moom ni mu ko wolee moom wol bu sax wol bu ah, bu oyof la because daf ko jëre def ko si biir gëna bi def si ndox tuuti nga xam ne jarul sax nga jël di xooj xam nga ñeneen dañ dee xooj ñebe waaye moom gis nga nu mu ko wolee yëf yi mu ngi ko wolee ndànk xoolit yëpp génn mu raxas ba mu set. dëgg la. waaw soo kat maa ko mees waa kër yëpp. waaw jërëjëf. di ko mees ma séeréer yi. ak poli xanaa. waaw xanaa kañ poli yaa ngi ci ko may Ana Sarr. waaw. di ko may yàgg Gorom. waaw. waaw di ko mees ma sant tamit. baax na jërëjëf. di ko may ñëpp ñuy seetaan. waaw jërëjëf amuloo morom. liggéey bi fet na. waaw jërëjëf. ok bye bye ok jërëjëf ah, ñuy jaajëfal kooku noonu ah, jërëjëf ah, kontaan waa kiram yëpp waaye di ko wax ne man moom may naa ko ko moom spécial because moom mooy first caller di ko yëkkal nag yëpp moom foog naa ne sujeer bi parce que benn séeréer mu si biir fii ne mu maa war ma ko yëkkal waaye foog naa ne naa ko yëkkal jigéen bu baax boobu noonu kool waaw kon ma leen ko no waxee rek grévi bi tamit am na ñoo xam ne dañ day jël diwlin defar sa gré bi waaye moom yéen a ngay gis ne sabtiw moom ni mu ko defee mooy diwtiir la jël diwtiir bi tamit jëlul ko rek mu fry grévi ah, grévi bi si biiram li mu def mooy ne dafa jël grévi bi def ko si biir sujeer dépaagum ko ba yëf yi steam boppam ba pare ba nga xam ne fu mu nekk ni liñoŋ bi ak yu sew yooyu noonu yëpp dee nañ ba pare den mu jël diwtiir bi sotti ko si kawam ba pare dipp ko nag mix ko ba pare dipp ko bàyyi ko noonu ay 2 minutes fekk diwtiir bi tamit ñor na Ah, gis ngeen def safara bu bari gis ngeen fu mu nekk nii mu ngi génnee ah, am naa fi benn séeréer boo xam ne moom ngeen ne moom abala bi daal bu maam doon dem daf ko waroon a ko si saako bi parce que saako moom su fa egg si wax na sujar bi loolu yóbbu loolu mooy ah, Lamine Diouf borom baax la waaye di ko may Sirifo Dabo di ko yëgal Sirifo Dabo mi nga xam ne liggéeyam rafet na waaye nag ñuy wax jigéen ñi moom xam nga ñebe dafa oyof mun nga koo defar ndiwu léegi sa sax nga invite séeréer joolaaye poli sax nga defar sa benn ndiwu bu neex ni xam nga ñun poli dañ bugg a lekka waaye nag foog naa ne joolaaye ñoo daax a lekka tayi ah ñu defar rek ndiwoo la mun nga koo defar reer maam lim deewoo mun nga ko defar sax njogonaal a ah, nga invite a ah, séeréer joolaaye rek ñu ñëw toog ñebe nag foog naa sere ah, séeréer yi ñoo ko gën a xam parce que ñoom ñoo dee tooga cere di fa def ñebe waaye nag pël yi moom xam nga lekka bu oyof moom pël ñoo ko fi daa am waaye ba léegi jigéen ñi ñu leen a wax ne ah, bakko bi moom dafa ñëw pour defar ba mu baax noo leen ko buggee rek noonu lañ ko buggee bakko benn la te GRTS rek ñoo ko yënga man daal maam daal na ma naa la moom parce que moom moom moom bakko bi waaye nag ah Ramatulaay Jaalo dafa tray rek toogal fi ah, maam Jeng Ah, ñuy defar rek ndanka ndanka ndanka ndanka ñuy ñaan jigéen ñi tam mboolem ko xam ne bëgg nga bokk si programme li nga def mooy ne call ma si 36 555 49 36 555 49 nga defar rek man daal maa am suma dépense teg soo leen ma koolee rek ma ma ñëw indi suma depanse ngeen defar ba mu baax ñu ñëw woon jeeg ñi rek naka lañ ko defaree fii parce que GRTS amuñ dara lu muy yéen te xam naa ne we are so proud o li ngeen a def mooy call 437 5905 fekkee yéen a ngi bitim réew muy 00220 437 3910 ngeen bokk si programme bi ah, ñuy jaajëfal ah, mboolem ko mu ngi seetaan waaye di jaajëfal ah, séeréer yi pël yi joola yi ñu bokk si programme bi ñu delluwaare wane waa tuuti rek si yëkka bi parce que dafa am kenn ku fi ku fi seen texte mu ne fa bugg a yëkka bi naka lañ ko defee so mu buga a gars yi MCR sista nga delo waat yëkka bi rek ñu seetaan boobu noonu allo asalaamaaleykum ok um, yéen a yéen a gis loolu noonu muy gravy bi na la ko uh, sista sabtu defaree moo dafa jël uh, liñoŋ beeg kaani beeg loolu mu wol noonu daf ko jël daf ko si suyeer dëpp ko bàyyi ko mu steam ba nga xam ne ndox bi nekk si liñoŋ bi wow na den mu jël diwteer bii nii sotti ko si kawam rek mix ba mu baax rek bàyyi ko noonu waaye foog naa am nañ kenn si line bi hello asalaamaaleykum. hello hello asalaamaaleykum. hello. hello nanga def. ah maa ngi nii na def. fine thank you Turbi, bi foo ñu koole noonu. Okay, man maa ngi Fanta maa ngi koole from Denmark. wow. Fanta naka wa Denmark. Wa Denmark a ngi Okay. Ah, gis nga gis nga toga bu am solo bii nii tey loo ci wax ah toga gi de moom ànd mana. maana. Wow. Sila laa man maa suma bu di naka lañ ko ayat Eh, olele gii nii. waaw ñu ne xiif nañ sax. ah xaaral xaaral ma yónnee leen ma ne ko xiif abala gi man lii gëj naa koo gis de. oh oh. waaye fu mu nekk nii ah dama xoom dama ñu ngi xoom xoom ci fi mu nekk oh xaaral ñu yëkkal leen ko bon. def leen loolu noonu defal loolu noonu. ok xanaa ñebe amut foofu. ñebe ngi fi de moom ñebe ok da ngeen a try rek ngeen jël si recipe bi rek ngeen defar. xam naa ne ko boobu la ka moom ko am waaye mun ngeen a use sardine waa am nañ ci lu mel ni xam ak la dafa mel ni makara waa jën ju neex sax waaw waaw mun ngaa use tuna fish tamit ni la loolu la ok koo ci yéen daal bu ñëwee Gambia xam nga dañ leen war a lijanti incha allah soo ñëwee rek ñu ngi fi di leen xaar loolu maa ngi hello asalaamaaleykum maaleykum salaam na nga def tur bi. man suma tur Fatou la. Fatou na nga def man daal Zeyna Bisaab laa gisoon daal kooku nomba mi laa bëgg a borom ku def toogoon bi Kouthia bi last time.